Ansar TV gaulen leen gaaw ngeen que cloche bi su ko membre abonné di am en temps réel tous les événements lu bees tàq wàcc na ci géew bi muy borom Baxdaad Karo entreprise boo xam ne dafay jaay lépp loo xam ne jëm na ci xeetu karo lépp xeet ba ca bëgg nag boo fa demee ñu jaay la ko moo xam qualité européen yi Espagne Italie fii ba Inde jàpp Chine qualité boo ca bëgg boo fa demee ñu jaay la ko moo xam karosol 60 sur 60 karosol 60 sur 120 karosol 30 sur 30 karosol grès cérame karosol grès poli ak ay caro faïence yu rafet lool Fayance cuisine faïence salle de bain et façade bâtiment faïence patio am nañu itam ay salle de bain yu luxe yu méngoo ak jamono yoo xam ne boo bëggee sangu danga dem sangu ji boo bëggul a sangu itam da nga dem sangu ji ndax seenub taar foo ko nat rek weesu na ko am na fa ay chaise anglaise lavabo chasse flexible marque européen mbokk yi BBC borom baxtaat karo seen gérant di Ahmadou Bamba Amar seen adresse ña nga nekk ca Kër Massar yoonu Sédiment ci wetu Jolof ci kan boo bëggee jokkoo ak moom wooteel ci 77 748 13 37 77

BBC borom Bagdad Karo yamul foofu ndax kër la goo xam ne lépp loo fa soxla ci ay meuble salon chambre à coucher ay porte blindée marque turquie defal sa commande nu mu gën gaawee diirub ñaar fukki fan képp lay am ñu indi la sa matériel na mu gën a gaawee kon nag mbokk yi kër gu taaru gu yaa njigaa ngoog di BBC boroom Bagdad Karo su ngeen àndee ak ñoom daal li ngeen di yittewoo ci wàllu karo te daan ko jéggaani ba bitim réew léegi loolu dafay dakk macha allah. mbokk yi ñu ngi sant borom bu tedd bi subhaanahu wa taala di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi may fàttali sama bopp di leen fàttali na lislaam diina ju matt diina ju wér diina ju mujj yàlla ji taxawaay bu am solo la am ci jigéen muy taxawaayu teral ko taxawaayu bàyyi ko xel taxawaayu naw ko taxawaayu jox ko li mu yelloo xettali ko ci musiba ak woyofal ak doyadal ak xeebeel ak di ko jariñoo bu mu ko fekkoon mu jële ko ci jox ko àqam mat sëkk ci dund wax ne moo góor mooy ñoo yam fu ñu jógee ñoo ko bokk fenn la leen yàlla jële binde lu ñuy def ci kaw suuf ñoo ko bokk waaye fa ñu mujj ba léegi ñoo ko bokk ku jëf lu baax am lu baax ku jëf leneen am leneen sunu borom nee na yéen nit ñi man maa leen bind man yàlla daf leen ngeen di góor ak jigéen daf leen ngeen di ay mbooloo ay giir ngir bëgg ngeen xamante waaye mën a jëriñante waaye na ngeen xam ne ki gën ci yéen mooy ki ci ëppule taqwa ki ci ki ci xel ci dundam na ngeen xamit ne yàlla xam na lépp sunu borom waxit ne képp ku jëf aw yiw moo xam góor nga wala jigéen nga te gëm yàlla bi nga koy def bu yomal xeemee sunu borom dana tàbbale aljanna lu baax li nga doon def la ko fay ba mat kenn du la ci dara leeral na moom lislaam it ne góor ak jigéen kenn ku ne ci sa morom dala soxla mu misaal ko ci ne yéere la kenn ku rek ñoom ni yéere mel ci nit noonu la góor mel ci jigéen noonu la jigéen mel ci góor ay yéere nag day suturaal nit di ko aar di ko taaral kon góor loolu lay jariñ ci jigéen waaye jigéen ñi lay jariñ ci góor ku ci mut loola nag ci yow la manqué waaye lañ lay doyee mooy nga doon koo xam ne sutura ngay doon kaaraange ngay doon waaye taar ngay doon suñ borom ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun jote gi dox diggante góor ak jigéen nit ak jàppalante la ak mottalante kenn ku ne daa am fu lu yàlla féetale am lu mu leen boole waaye nag kenn ku ne day des doon lim doon góor ñi nañu des di góor waaye jigéen ñi des di jigéen kenn ku ne féete ba nga fa nga war a féete ci dund gi dund gi door a mën a jag noonu la ko yàlla bëgge góor ñi ñoom la sant ñu taxawu jigéen ñi ñoo leen war a dundal ak li dundal laaj lépp ci dëkkal ak wadd ak faj bu faj bu woppee yi ci waaye jigéen nit moo war a toog ci kër dalal kër lu ñu andi ci kër gi mu sàmm ko saytu ko ba ñi dund ci kër gi mën a dund ci jàmm kon kenn ku nekk fa nga féete mënoo fa ñàkk déggin wu am solo woowu nag bu leer woowu nit ñu baax ñi ci démb moom lañ déggoon diine dégg gu leer nañ ñi daan ko dund ba tax taarix nettali lañu ay jigéen yoo xam ku tudd ku aw yu seen na fi ndax seen jëf yu rëy yoo xam ne dañ ko fay bàyyi ay nit di ko ñu bokk ci ñoom ak ñu bokk mbokk yi jigéen ñu mel noonu nag soxna su si ñu doon fàttaliku démb ci la bokk mu soxna jaaratullaahi soxna Mariama Bousso radiyallahu anha misaal la ci mbaax misaal la ci njub misaal la ci gën doon koo xam ne ku ragal yàlla la woon doon topp yàlla boroomam subhaanahu wa taala loola jural ko lim am jóge fi bu yàgg nga xam ne ëpp na téeméeri at ak juróom benn fukk ba mu fi bàyyi koog léegi ci barab boobee nga xam ne topp ndigal ak nangu ko ak ànd ak ay kilifa moo ko fa yóbbu waaye dëkk foo dama foo ni bokk te tey jii mu mel ne mooy borom yiw wane di ko fa fekk mbaax gone di ko fekk saa bu ñu suñ ko wootelee bis ñëpp dagg seen yite di wuti baax di fa yóbbu mbaax loolu mbokk yi li ko may moom mat a bàyyi xel bind bi ñu war a njëkk jàng ci xew-xew boobu kenn ku ne ci ñun ko ci jàng mooy lu tax mu am loolu mooy dafa nekkoon ci li mu war a nekk li taxoon yàlla bind ko indi ci suuf ca la nekkoon di jaamu yàlla boo xam ne xam na ne yàlla moom mom moom féppam mu tënku ca loola ba yàlla gërëm ko tofal ko barke barke boobee nag moo des ñii di ko jariñoo kon ci ngëneelu yàlla ak mbaaxu suñu borom ak nag góorgóorloom ba tënku ci li ko bind li taxoon ñu andi ko ci suuf mu ne ca moo ko jural loolu xam ngeen ne ñëw na ci xabaar yi wax ne kenn ci banu Israël sunu borom mos nako ko wax yu ne ko na nga xam ne suñ ma ma gërëm te man su ma gërëmee man yàlla dinaa barkeel te sama barke am fu mu yem su ma gërëmee dinaa barkeel te sama barke amul fu mu yem li tax ma gërëm nag mooy ñu topp ma kon soxna si topp na yàlla yàlla gërëm na ko gërëm nga indi na barke barke ba moo law ba ak si tey jii ñëpp di ci jot loolu nag bind bi ci ne ku ne war a jàng mooy yow yow yow loola war ci loolu kon soxnaa ngi woon nii soo xam ne mësta tëdd di nelaw mësta toog di xoole waaye dafa ne li tax yàlla bind ko ba am ngërëm loolu kon jànge ci fexe na mel noonu yow fexe ba sa njaboot mel noonu ndax suñu borom kat day teg ay teguwaay ku ci jaar la muy may ñu baax ñi mën na la ko may kon góor góorgóorlu la bind boobu lañ ci war a njëkk jàng mbokk yi kon jéem a am barke te barke ngërëmul yàlla koy maye te ngërëmul yàlla nag tënku ci ndigal yàlla yi moo tax nga am li yàlla tere lépp nga bokk ndax yàlla terewut lu ñu mënta bàyyi mbokk yi bakk na fi nekk rek ak seytaane waaye yàlla terewu lu ñu mënta bàyyi li yàlla digle lépp nag loo ci mën nga loolu boo ci tënkoo da nga am ngërëmu yàlla ci ko am ngërëmu yàlla am barke yàlla na ko yàlla boole defar ñu bàyyi xel bu baax baax suñu borom jëf la ñu def loo àdduna andi wuñu fi ngir ñuy xoole wala ñuy fekk nit ñi jëf napp noppi ñuy jariñoo lañ jëf ñu bari ci noonu nag dañuy dund ci barke bi ñuy jiitu woon rek waaye defuñu fi dara bu ñu fi jóge woon tey bàyyiwuñu fi dara loolu lu a moytu la mbokk yi lu mat a moytu la suñu borom nee na jëf leen jëf leen suñu borom dana gis seen jëf yonent yàlla dana ko gis julli ñi danañ ko gis soxna jaara rek da doon ba tax yàlla gis jëfam yonent gis ko jullit ñi gis ko tey moo tax ñu wujji woote boobu ku ne ci noonu nag jéem a roy ci loolu te jéem a góorgóorlu te xam ne bisa gi ci kanam suñu borom danañu taaj taaj ñëpp la nga defoon ci lu baax lépp ñu fay la ko tey soxna si yiw bari boobu koy fekk foofa lu mu bari bari moom rek moo koy jariñoo ndax yomal xëy am des fu maye des fu sarax lu fooy am yaa ko moom kon yu baax yi koy dikkal yépp moo koy jariñoo bu ëllëgee nañu fexe am ci barke yooyu bañ a ci di ko yéem ak di waaru waaye jéem mel ne moom fexe ba sunu njaboot it ñu roy leen naq leen ci loolu yàlla na yàlla boole dimbali BBC lu bees tàq wàcc na ci géew bi muy borom Baxdaat Karo entreprise boo xam ne dafay jaay lépp loo xam ne jëm na ci xeetu karo lépp xeet ba ca bëgg nag boo fa demee ñu jaay la ko moo xam qualité européen yi Espagne Italie fii ba Inde jàpp Chine qualité boo ca bëgg boo fa demee ñu jaay la ko moo xam caro-sol 60 sur 60 caro-sol 60 sur 120 caro-sol 30 sur 30 caro-sol grès cérame caro-sol grès ak ay caro faïence yu rafet lool faïence cuisine faïence salle de bain ak façade bâtiment faïence patio am nañu itam ay salle de bain yu luxe yu méngoo ak jamono yo xam bo bëggé sangu da nga dem sangu ji bëggu la sangu itam da nga dem sangu ji ndax seenub taar foo ko nat rek wessu nako amna fa ay chaise anglaise lavabo chasse flexible marque européen mbokki BBC borom baxtaat karu seen gérant di Ahmadou Bamba Amar seen adresse ña nga nekk ca Kër Massar yoonu sedima ci wetu Jolof ci kan bëggé ak ci 77 748 13 37 77 748 13 37

BBC borom Bagdad Karo yamul foofu ndax kër la goo xam ne lépp loo fa soxla ci ay meuble salon chambre à coucher ay porte blindée marque turquie defal sa commande nu mu gën a gaawee diirub ñaar fukki fan képp lay am ñu indi la sa matériel na mu gën a gaawee kon nag mbokk yi kër gu taaru gu yanjigaa ngoog di BBC borom Bagdad Karo su ngeen àndee ak ñoom daal li ngeen di yittewoo ci wàllu karo te daan ko jéggaani ba bitim réew léegi loolu dafay dakk macha allah